ñiar yeen ñi ci wono sport ñu ñoo ci ben bi do wax jaaw kay ta bal manante biteur la euh ci fele nga xamne moy rusi nek ci club bu ñaan mosco jaaw bal nak isaimi de espoir bi me 4e bi jaaw gabal jaaw kay ta bal de depuis bi mu demé fele ci mosco na ci nay leral nak wax taxaway jaaw bal demé lata lolu dañu wax yi ñi gën ci page ngeen abonné te nga bas ko notification bi pour ñi yeen ci vidéo ta rafi ñu pour sama gaay jaaw bal dama faax na isaimi moy ñu ko wax tak abordar bu abordar abordar bu baax baax fa ci tampena rusi ba de bi mu nekkee ci club bu européen yi di toog baalu xaw a diire jóge na fa léegi nag dem ci club yi nga xam ne ñuy euh, euh, nekk balee club Europe la mais Russie la boo xam ne club bu am la isaan nag mi mi ngeen partagé bu baax baax